ginnaaw ba ma sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa remercier tous les journalistes yi nga xam ne ñëw nañ fi tey pour waxtaan ak ñun weccoonte ñun xalaat participer par votre présence à l'appréciation de la situation politique que nous vivons c'est une situation particulière et pour laquelle chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais est interpellé. Donc je voudrais vous dire merci à vous journalistes d'être là, encore une fois, nombreux et présents, puisque vous êtes des acteurs essentiels dans ce qui se passe dans notre pays. Je voudrais aussi communier avec la communauté catholique chrétienne qui a entamé le carême. Le carême est un moment de pénitence et de communion. Et nous voudrions leur dire, pour leur souhaiter que ces moments-là puissent être exaucés et que les prières qui seront formulées puissent être bénéfiques à notre pays. ma wax ne waxtu wi ñu door lii suñu mbokku catholique yi door nañu seen koor um nañ ko koor nag muy bu catholique muy bu jullit waxtu jaamu yàlla la waxtu nekk ak sa boroom la waxtu nekk ak say moroom la ak askan wi di waxtu woo xam ne dañuy ñaan dañuy delloo suñu lépp ci yàlla ñu di leen félicité di leen wax ne loolu ñu dugg yàlla nañ ci génn ak jàmm parce que loolu moo am solo ma félicité aussi puisque ñun waa Dakar lañu aussi suñu mbokku laayeen yi xam ngeen ni ci appel bi lañu génn suñu maam limaamu yàlla may ko defal ko la mu ko defaloon communauté boobu ak waa Cap-Vert yépp ànd ci ñaari fan delloo seen boroom seen xel ci seen boroom ñaan waxtaane réew mi loolu lu am solo la ma bëgg aussi sant yàlla bu baax rendre hommage ceeb ñépp ñi nga xam ni yàlla dafa moom seen bakkan ci période bii ñu génn muy xeexu suñu démocratie muy ay ndaw yoo xam ne dañu faatu ci xeex pour que démocratie wu Sénégal gën a taxaw lu am solo la parce que waruñu fàtte mukk ce sacrifice là ñun ñëpp ñu am à l'esprit ni de deux mille vingt depuis trois ans bientôt réew mi ñàkk na ci ay doom yu góor ak doom yu jigéen yu baree bare bari yàlla na leen yàlla xare àjjana mais su ma waxee loolu c'est pour que nu perdions jamais de vue ces sacrifices suprêmes de ces jeunes garçons de ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes yi nga xam ne ñàkk nañu seen bakkan sur le chemin de l'honneur pour que démocratie wu réew mi gën a sax gën a dëgër gën a yaatu ma wax ne waxtu wii ñuy waxtaan tey waxtu wu am solo la parce que suñu démocratie nag dafa jolli conseil constitutionnel démb jël na décision bu am solo décision boo xam ne dafa ñu siggil li nga xam ne moo njàngat bu njëkk bi mooy li ñu dund le 3 février waratul am mukk ci réew mi jamais plus à nouveau un 3 février qui ay été un moment sombre de l'histoire démocratique de notre pays askan wi àdduna bi ñëpp teg ñu bët ñépp duut ñu baaraam mani loolu waratu fee am ba faw waxoon nañ leen ko waxaat leen ko guléet la ci réew que élection présidentielle ci réew mi ñu laal ko naam dinañ ma wax ni élection nationale kenn mësu ko fi laal sauf 2007 ma ni yooyu daf fi war deñ dans une démocratie qui se consolide dafa am yoo xam ne waratul ne waratul am le dernier bastion imprenable qu'était l'élection présidentielle 3 février cof na ko ñu sant yàlla bu baax félicité wu ci li nga xam ni démb le conseil constitutionnel siggil nañu parce que nag ñun ñëpp ñoo ko interpellé woon ni ko askan waa ngi lay déglu askan waa ngi xaar ci yow nga delloo si boy boy ci lu ne c'est-à-dire nga fexe ba yëf ki nekkaat à l'endroit et je crois que décision au conseil constitutionnel puisque loolu lañ nar waxtaane daan ci dellu si mais li mu ñu waral mooy ñun ñëpp siggiwaat nañ ñun ñëpp siggiwaat parce que nag li mu def démb on n'attendait pas moins du conseil constitutionnel moo tax ñu rafetlu ko mais xam ngeen ni décision yooyu nag ce n'est pas sans conséquence d'abord 3 février bi ñu génn te bëggatuñ ci dundaat li mu jur mooy conseil constitutionnel ba mu décider walla bala moo décider na ma rendre hommage ñi gaañu maa ngi rafetlu ñiy génn beaucoup d'otages politiques beaucoup de prisonniers politique ñoo ngi leen di génnee massivement dans quel cadre dans quelles conditions selon quelle modalité le pays interpellé fan la président wékk ñii ñu duutoon baaraam ni dañu tuumaal dañu menacer l'ordre public c'est des personnes yoo xam ni dañu def lu mucc ayib ñu xëy rek génne leen sans jox ñu explication lan moo ko wënd lan moo ko lal dama leen waxoon fii keroog ni teel am dëgg day dafa neexul mais ñu wax kook ñu bañ ko wax lii président def lii gouvernement bi def am na lu ko lal ma mu neex mu naqadi nañ ko duut baaraam am na ñuy waxtaan loolooy dëgg gi ñiy waxtaan nag am nañ ci droit parce que ñun loolu lañ gëm gis nga réew mi lépp amul luñ fi mënul waxtaane amul luñ fi mënul toog weccantee ko su ko ñëpp comprendre lépp dana yomb mais ñun bi ñuy def dañu ni fàng ni jë wax dox jëf ñu ngi xaar ñu xam lan moo lal lal moo wund ci lan la wékku lii geste yi ak acte yi gouvernement bi di posé ñii joxe nañu lii ñi ci des lan la ñuy joxe en tout askan bi bëgg na xam parce que looloo am solo nag ñun liñ defoon dafa ni fang ñu assumer ko waxtaane ko bon nag lii nga xam ne dañ koy rafetlu muy ñuy libérer prisonniers yeeg détenus yi lu baax la mais li ko wund li ko lal fiñ ci jëm askan wi war na xam ci turu askan woowu laay aborder question bi noonu ñuy xaar nag ñu wax ñu lan mooy xew ak lan moo ne mais lu ñuy rafetlu la ñu rafetlu nag bu baax décision conseil constitutionnel ma ni dafa rëy ñun ñëpp dañu siggi parce que liñ fi waxoon loolu la conseil constitutionnel dëggal que réew mi constitution Sénégal permettratul dans ses disposition fondamentaux fondamentales que kenn di ko laal wala kenn di ko changer pour quelque raison que ce soit ñu fàttali woon disposition yi nga xam ne mooy li ne parce que li conseil bi décidé ñaari yëf la ba ci ñett bu njëkk bi mooy dafa ni décret bi président de la république jël décret boobu validul baaxul annulé na ko mu ni ñaar loi bi assemblée nationale votée validul c'est pas conforme à la constitution donc baaxul mu ni ñett la mu waxoon 2016 la waxaat tey que mandat bu mu mënta doon parce que bu leen ko yemale rek ci mandat wu président de la république 2016 li conseil constitutionnel wax mooy mandat bu mu ci mënta doon ak mandat wu ku mu mënta doon dès l'instant que yaa ngi door nga xam dure bi xam nombre bi ma ni loolu mënatoo ko yokk mënatoo ko wàññi loolu la conseil constitutionnel dëggalaat mooy ñetteeli décision bi ñeenteel bi conseil constitutionnel ni lu ci mënta doon mandat président Macky Sall le 2 avril Macky Sall ne sera plus président de la République du Sénégal kooku dañ bëgg mu leer parce que loolu la waxaat juróomeel bi conseil ni comme que élection bi dafa war am parce que lépp liñ ci pexewoon nag lu ba joog raxaseeg pour defar ko dindi na ko mu ni il faut que élection yi am ci dans les meilleurs délais ci meilleurs délais yooyu nag la ñuy waxtaane tey parce que ñu bari ci ñun ñëpp nañ ci d'accord dañu gëmoon dañ doon xaar ci conseil constitutionnel su jëlee décision ba pare mu xuus ci nan la kañ la la ñuy def élection yi même su fekkee mooy juge en cette matière là du moom mooy organiser donc li mu prix conseil décidé te ñun ñëpp ñu war ko liirandoo mooy dafa ni ci lii ñu jëm ku nekk na jouer sa rôle ku nekk na jouer sa rôle si nous voulons être nag à la hauteur du moment si nous, on veut être digne de la confiance des Sénégalais, chacun de nous est interpellé, tous les acteurs. Et tous les acteurs, c'est le président de la République, c'est l'exécutif, c'est les acteurs politiques et c'est la justice. soo ko doon tasaare sax di nga ci dugal Sénat ku ne mais acteurs mooy ñëpp ñoo xam ne dañuy intervenir ci élection conseil constitutionnel dafa ni nañu delluwaat xoolaat suñu bopp foofu nag c'est notre capacité notre génie notre esprit de sénégalais nga xam ni daf ñu may à chaque fois que réew mi am fu mu toll am lu mu laaj am lu mu yaakaar lu nit ñi xaar ci ñun ñu fexe ba eggali ko et c'est ça qui est intéressant pour chacun de nous nan la ñuy fexe ba 2 avril président Macky Sall dem ci jàmm beneen président wutu ko question bi ngeen war di bëgg poser mooy est-ce que élection yi dana mën a fexe ba mën am 2 avril ñaari schéma moo mën doon mën nañu xoolaat délai yi mën nañu xoolaat doxalin bi ak defin bi ba 2 avril président Macky Sall passé pouvoir ki nga xam ni moo ko wuutu mais xam ngeen calendrier bi certaines dispositions surtout en ce qui concerne l'élection présidentielle ce son des dispositions constitutionnelles ou su fekkee code électoral la disposition yi loi organique la c'est-à-dire soo ko doon voté dafa am lu mu laaj soo koy laal dafa am lu mu laaj donc liñ ci war jàngat mooy ñun askanu Sénégal ñun acteuru Sénégal politique ak lépp ci am war nañu ku nekk nag xoolaat Sénégal rek pour ñu trouver solution nan lay demee waxtaan lay doon décision lay doon li am solo mooy président seul mënu ko war décider démb maa ngi suivre sax yi de débat ma dégg des responsables de la majorité ñenn ñi nee nañu bu président nangu décision bi ñenn ñi nee nañu président nu ko neex la koy defe su président xalaatee defe ko moom rekk kott dong mi ngi def loo xam ni du régler problème bi ce sont tous les acteurs qui doivent être dans le processus pour que élection yi am su ñu bëggee mu doon avant deux avril xam nañu ci lan la ñuy jouer parce que ay délais la rek y a des délais légaux am na yoo xam ne c'est incompressible am na yoo xam ne c'est compressible mën nañ ci waxtaan mais li ma bëgg a wax foofu mooy ñun xalifa président mooy que ni foofu ñu toll nag c'est le génie de notre peuple qui est interpellé c'est notre capacité à faire preuve de dépassement qui est attendue c'est notre nos moyens intellectuels politiques moraux qui vont faire en sorte ku nekk fàtte jiital réew mi jiital démocratie am jàmm askan wi développement wu réew mi pour que ñu toog waxtaane ci naan dans quelles condition luy ñëw la ci kanam la boobooy bi jiitu mais su ma déggee sama xarit yi di wax keroog naan bu président def lii président amatul choix 2 avril day dem ñiy wax leneen xëy na dañu xalaat article cinquante deux yéen ñëpp xam ngeen article cinquante deux li mu signifié ak li mu wund ma ni article cinquante deux du xel article cinquante deux du sago on vient de vivre le 3 février bu fi kenn wax article cinquante deux surtout que pour que article cinquante deux ñu mën ko utiliser il faut un blocage des institutions c'est-à-dire gouvernement bi du daje alors qu'il vient de fair son conseil des ministres justice bi du fonctionner alors que le conseil constitutionnel vient de prendre sa décision assemblée nationale fonctionne wul alors qu'elle est convoquée à tout moment elle vient de voter une loi donc condition yi nga xam ni mooy tax cinquante 52 di taxaw amu fi dama bëgg sama xarit yooyu fàtte loolu na ku nekk delloo ci sa xel xam ni li am solo léegi mooy Sénégal dinga Sénégal gi rek a xew moo aye su xewee te aye na ku nekk da ngay fàtte sa bopp donc mbokki Sénégal mbokki àdduna le Sénégal a pris conscience de sa place de sa position de vitrine de la démocratie. Elle a été balafrée le 3 février. Nous en convenons, nous l'acceptons. Mais nous avons toujours les moyens et la capacité à nous relever et à faire face. Par le Conseil constitutionnel, nous venons de vivre cette situation-là. Bravo à ces magistrats qui ont répondu à notre attente. Bien sûr, nous sommes d'accord. Il y a des questions qui n'ont pas trouvé de réponse dans les décisions du Conseil. Mais le Conseil a été très, très clair. Il a invalidé et le décret et la loi qui étaient incriminés. C'est cela qui importe. Il a mis les acteurs politiques de ce pays devant leurs responsabilités en réaffirmant que, en tout état de cause, les intangibilités et les dispositions d'éternité qui existent dans le dans la Constitution doivent être respectées. Pour ce faire, il est à noter, accepté et reconnu par tous et de tous que le 2 avril, le président Macky ne sera plus président de la République de ce pays. Et que il est demandé à tous les acteurs, toujours par le Conseil, beaucoup d'entre nous avait espéré, s'attendait, voulait que le Conseil décidât des dates et des modalités. Ce n'est pas son rôle. L'organisation des élections relève d'acteurs connus, identifiés, l'exécutif et les acteurs politiques. Ce qu'il faut retenir c'est qu'en rejetant le décret, en rejetant la loi, le Conseil nous dit on poursuit le processus. Ce sont les 20 candidats retenus qui continuent le combat. Ça, il faut que ce soit compris. Et que ces candidats-là, avec tous les autres, devront se battre pour que les délais normaux, constitutionnels soient respectés. Et c'est sur cela que nous sommes tous interpellés. Dans notre capacité à faire preuve de dépassement, d'ingéniosité, de responsabilité pour que cette vitrine de la démocratie africaine qu'est le Sénégal puisse rester ce qu'elle doit être la vitrine. Donc, je voudrais que l'opinion nationale et internationale se le tienne pour dit. Aujourd'hui, il s'agit pour notre pays de continuer sa marche dans la consolidation de la de sa démocratie. Nous sommes interpellés dans notre capacité de dépassement. Il nous faudra discuter entre acteurs si nous voulons tenir les délais. Nous avons beaucoup de suggestions parce que dans ce pays, grâce à Dieu, nous avons les ressources humaines, les ressources intellectuelles pour avancer ensemble. nous avons eu toutes sortes de propositions. Beaucoup de schémas ont été esquissés. Il faudra se parler. Il faudra en parler. La coalition Khalifa Président considère aujourd'hui que cette exigence de se parler, de discuter, elle devra être de mise pour chacun de nous. Vous savez, ce pays, c'est dommage, on ne peut plus se parler. la calomnie les insultes sont devenues monnaie courante la suspicion il y un terrorisme dans ce pays qui veut que kenn mënatul wax ak kenn koo waxal rek ñu suspecté la yóbbu nañ ma ñaari yoon palais deux fois nee nañu maa nga palais di waxtaan je vous avais dit ici et je le répète de manière solennelle et officielle je dois parler au président, je veux parler au président, il souhaite que le président me parle, le président veut me parler, je parlerai au président ci leer ci lu wóor du ma ko nëbb du ma ko làq si je dois aller au palais j'irai au palais mais c'est ma décision c'est notre décision kenn ñemeetu fi wax dama wax ak Macky kenn ñemewatu wax damay gis Macky pourquoi comme si les gens ont commencé à exister en 2024 dans ce pays on s'est toujours parlé ce pays a traversé des crises énormes vous vous souvenez même l'accession du président Abdou Diouf en 80 a été l'occasion de disputes vous avez vécu 83 vous avez vécu 88 vous avez vécu 94 vous avez vécu 96 vous avez vécu 98 vous avez vécu 2000 tous ces moments-là, c'est des moments où l'unité nationale, la cohésion nationale, notre société, notre pays avait été interpellé. Nous avons pu tout surmonter parce que nous nous sommes parlés et personne ne nous empêchera de parler et de discuter. Je suis un partisan acharné du dialogue et de la discussion. Mais je dis chaque chose en son temps. Et si on doit parler, on l'assume. su may seeti Macky Sall di wax ak Macky Sall fang laa koy def bëccëg ak guddi pale fu mënta doon mais duma ko làq duma ko nëbb que les gens le sachent une fois pour tout su may dem du ay tiktokeur xam nu ngeen leen tuddee kii va annoncer que je suis au palais deux fois m'a dit je suis benn bi j'étais en réunion jusqu'à quatre heures du matin hier j'étais à mani ji nga su may dem palais fang lay doon amul làq amul nëbbut J'ai besoin de voir le président de la République, je lui demande de, de, me recevoir. Il a besoin de me voir, il me sollicite, je vais le voir quand je pense que c'est utile. Alors, c'est quoi cette tyrannie-là C'est quoi cette suspicion ki nanguwul jàkkaarloog sa adversaire da nga wóoluwul sa bopp soo demee seeti wax ak Macky Sall day wax jox la nga wax delloo ko moi je suis dans l'opposition depuis vingt-quatre ans je n'ai rien à prouver amatuma lu muy prouver fii ci réew mi xam lu bari fekkee lu bari mën lu bari nag alors qu'on arrête cette manière de faire aujourd'hui on insulte les gens di leen tuumaal di leen waxal lu ne fu ko yëg faut pas que les gens ku nekk am nga ndey am nga baay am nga njaboot am nga doom koo fi wax lu metteeg lu naqadi mën na la ko delloo c'est que am na ñu ñenn ñu jombal seen bopp am na ñu ñenn ñu rus looloo tax loolooy différence bi ay certains mais fii lu ne yomba na fi nag quand j'étais jeune socialiste su amoon ñu daan ngand ngandaloog di balballu dañ leen wax ne xoolal réewande kenn gisul fu ñu koy jaayee ku mu neex réew mbubb la ku ko sol mu jot la ku mu neex nga reew faut que les gens comprennent que on a assez assez de cette tyrannie-là, du sosaka tuuma la ko il faut que réew mi dellu si ci la mu waru woon bàyyi mooy waxtaan mooy déggoo mooy juboo waxtaan c'est pas parce qu'on se parle qu'on s'entendra non mais au moins qu'on se parle ñun ñiy ruumandaat ak waxtaan yi dañ leen tudd tudd ñu leen amul leen tere parce que xam nañ ne am nañ droit waxtaan seulement ñun bi ñu koy def Sénégal yëpp xamoon na ñu ngi waxtaan c'est la seule différence et on assume ça donc je veux vraiment que ce débat là de dem présidence ak bañ dem chaque jour ñu yëgal leen ni maa ngi président demaguma fa mais su may dem ma ni duma tàggoo danaa yëgle su ma del seet danaa leen yëgal parce que c'est ça mon devoir d'homme public qui a des comptes à vous rendre ma ni ma dellusi li nga xam ni mooy aali kale ji mooy fii ñu jëm élection yi incha allah dana am deux mille vingt quatre loolu la conseil constitutionnel décidé nan lay amee ñun ñoo koy waxtaane président Macky Sall dafa war jël responsabilité mais ku nekk ci ñun dafa war jël responsabilité parce que conseil ñun la delloo yëf ci léegi nee na nañu waxtaan. ñu arrêté délai yi ñu arrêté date yi wax naa leen ñaari façon yi fi am est-ce que dañuy def élection dañu bëgg a def élection que président Macky Sall ko 2 avril mu passer le pouvoir à son successeur ou est-ce que day def leneen li gën mooy mu jox pouvoir bi son successeur ñeneen ñuy wax ñëpp dañuy bëgg wax lu leen neex parce que au-delà au-delà du 2 avril le président Macky Sall ne peut plus rien faire dégg naa dañu bëgg a changer conseil constitutionnel pour def ko cour constitutionnel suñ ko defee de dañuy changer loi bi mënul ne bii moom wéy na jeeg bay wéy na mbuus suñ doon def it dañuy jéem def des dispositions transitoires pour annihiler li nga xam ni moom mais boobaa sénégalais duñ ko nangu mani xam nga li réew mi wane mooy lan mooy que ni fii rien na sera plus comme avant am na lu kenn dootul nangu donc il faut que askan wi comprendre ñun acteurs yi ñoo war jël suñu matuwaay président Macky Sall moo war jël matuwaayam ñu toog waxtaane parce que munu ci ñàkk pour nan la ñuy defee exécuter nan la ñuy mettre en œuvre décision wu conseil constitutionnel loolu moo am solo en tout cas man Khalifa Sall je suis prêt je suis prêt à assumer parce que dama xam lu bari fekkee mais surtout parce que je suis prêt à être le prochain président de la République du Sénégal j'en ai tous les moyens et les capacités mais surtout aujourd'hui il faut que nit ñi xam ni liggéeyal Sénégal moo ñu ñor te ku nekk da nga war mel na nga war a mel donc nañu waxtaane lépp nañu doxale lépp pour que seul le Sénégal puisse sortir vainqueur de cette situation et que le respect que les autres nous nous continuons à le mériter. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Je suis à... que Macky Sall ouais, je, je disais, j'ai dit à propos d'une...